ci fajaruk altine yi juróom-ñeenti fan ci weeru mai atum 2022 ci njiitu soxna maam Issa Mbàkke ak mboolem fédération ahlu café yi aju ci moom bàyyeekoo nañu fu nekk ci biir Touba ngir ñëw ànd ak moom jëm ca dëkk bu tedd bile. ni ñu ko amale nag fii ci Touba noonu lañ ko amalee ca Ndakaaru ci njiitu soxna Faamaloo mu jiite fédération bi foofe ca sowu julli ci yonente santaat Serigne Touba Mbàkke di santaat bu baax Cheikh Massamba Mbàkke demoon nañ nañ ko bu baax di am mbégte bu baax nag ci départ bi ñuy départ fii ci ñaan ñu dem ci bisimilahi rahmaani ñibbi ci alhamdulilahi rabbil alamin comme nañ ko daan defe rek te lépp luñ fa liggéey rek ak nangul ñu ko te lépp tegu ci kaw dëgg rek ak jàmm ak salaam waaw délégation bi jógee Dakar xam naa ñoom sax normalement war nañoo départ ndax ñoom ci guddi ñuy départ dugal la ñuy fanaan waaye suñu eggee fi ñuy ndekkee fi la ñuy xaar ñu mën a daje foofu mën a saafoon teg ñi ñuy a départ na wuti dëkk bu seetlu ginnaaw bi ñu déparé ca ndakaaru ak Touba ci la ñu daal di joxante dox daje fii ci luga fii nag bi ñu ñëwee niñ koy defee at mu jot amal nañ fi ab taxaw négandiku bu am solo boo xam ne nii mënul ñàkk ci liggéey bi. sant rek ndax sëñ Touba lu ci waay def rek perto te maam Issa jar na lu ne ndegam maam Issa mi mooy takk ndigam di dem ba Europe. di dem ba Sénégal fenn fenn fu waay nekk rek yaa ngi bëgg mel ne maam Isa man tama bëgg a takk sama digg bëgg a mel du ma mel ne moom sax waaye ma xaw koo jege kon nag maa ngi sant maam Isa Mbacke mii ma dugal ci yoonu sëñ baa wi ba ma di ci laxasu di ci def ay xéewal di sant bu baax a baax. def nañ ko ay ati ati at soxna Njaw Sëy mi nga xam ne noo bokk ay nu raxmati moom moo ko moo ko njëkk a soññee ñu daan ko def ay laax moom yàgg ñu soppi ko di ko def ay niin tey nag soxna Ndiaw dafa génnoon mu ne xañ na xat na te maanaam liggéey bi dafa xaw a jamp léegi mu joxe ndigal pour ñu defar ay madeleine di ko soxna si tey sàkku ci soxna si nag ay ñaan. rek ndax ñoom ni mu ko waxee léegi ay ati at rek ñu di ko def ay laax lañ daan indi yu bëree bëri waaye tey ni mu demee tax ñu def ko nii kon xam nañ seen yéene ñu ngi leen di ñaanal bu baax rek ngeen yokk ba yëg ko ko waxee rek euh, ñu dund ba ànd ak yéen dem sar sar loolu rek lañ bëgg suñu jaarate ñëpp gannaaw saafonte yooyu ak yenn ci mbokki taalibe yi nga xam ne nii naka jekk danoo am ay teraanga yu nuy waajal di ko indi fii ci Louga ngir gunge ko mbokki taalibe yi jëm Sarsara ci la ñu daal di deqiwaat nag jëm si fi nga xam ne nii moo di Mauritanie gannaaw ay dëkk yu bëri yu romb yu ci mel ni Ndar ak Rosso ci la ñu daal di jégge frontière ñëw nag Rosso Mauritanie fii nag di bërëb bu am solo ci tukki bi. ndax mboolem lu jëm ci matuwaay ak jumtukaay yi nga xam ne ni war nañ koo am ci ay kayit ak la ci aju ngir mën a dugg ci réew Mauritanie amal nañ ko ci anam yu mucc ayib te amul benn jafe-jafe. suñu tànk ne tey mooy parce que jóge dina jóge Sénégal suñu réew ñëw ci fii ci Mauritanie mm-hmm. ngir siyaare Sëñ Touba ca Sarsara dugg nag dem siyaare ji nitu yàlla te yàlla rek tax mm-hmm. wala siyaare ji bërëb bu baax sàkk barke loolu dafa nekk lu am solo lu am am solo la siyaare te yàlla tax mm-hmm. ñi nga xam ne suñ bi ñoo garé woon Sénégal fekk Mauritanie ñëw ziar si ko dama leen waxoon ci xasida ga ne maanaam ziar boobu dañu taxale ko bàkkaat àdduna alaxira kon nag loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la yàlla si ma defal ñun ziar bi tamit ñu ñu ñu am ci loolu. ni ko sëñ bi waxoon ca Libreville. tababu man baachara fii Libreville lii li baa foli la daa taxawuli biñ ma jëlee Libreville dañ ma yóbbu fu ñu naan baa foli mooy waa foli waa wili yi bato bi mi lañ ko dugaloon mu escale fu ñu naan cap pes dem ba Mayumba wëlbateeku ak Escale Cap de Pes continental Lambaréné kon loolu la may fàttali am mbégte lool ci sëñ bi wax ne ñi nga xamante dañuy déplacé ñëw fi nga xamante ni mooy Sarsara ku ne xam Sarsara mooy al xaybatul bahriya xay xaybatul bahriya mooy euh, fu mel ne ki Gabon waaye bahriya mooy mooy mooy fii nga xamante ne mooy euh, Sarsara muy Mauritania donc li ci xew bari na lool euh, ci ci ci ay ay ay ay ngëneel yu bari bari lu mel ne ki téere bi nga xamante ni mooy werdul maxuus mhm. mën nañ ko jël cité ak yeneen xasida yoo xamante ni sëñ bind na ko lu ma ko rabbi bi maasro asan muy arrahman rahim wa kaana aqan yu yëpp am na ci waaye incha allah xam naa euh, dañoo bëgg daal mënuñu wax xam naa bu suñuy maam yi ñëw fii dañoo dox ñii di faatu ci yoon wi ñii di demee du desiwaat na ñu nag ñu dugg suñu oto ñëw fii euh, di ko dundal fas yéene demal euh, mur yëpp foofa ñun dañoo war a sant yàlla Euh, sama maam mi ma may nettali nee na keroog bi muy ñëw fii Sarsara ci Sëñ Tuubaa téeméeri kilo dugub lu ko indaale la juróom benn fukk la yenu taalibe bi mu àndal yenu ñeen fukk ñu naan ko maam Moussa Badiane bi ñu ñëwee ci bi waxtu takkusaan lañu egg ci sëñ bi Sarsara bi ñu yëgloo sëñ bi ne leen bisimilah bi ñu ñëwee sëñ bi ne euh, ana mu sama maam ne li ko lii de pepp mu ñu indaale woon doon sëñ bi la sëñ bi ne na xam moos fii ma toog pepp mu mën a tu murum koor laa doon ñaan suñu borom nga jamono yooyu ku ne xam ne lu jafe la woon Euh, sëñ sëñ sëñ Cheikh Khady Gueye mi ngi naan ma euh, da ngaa waroon nag saa sooy ñëw nga wut ci baraay cër indaale ko mu ne ko loolu moom lu war la lu war la ndax ñooña euh, li ci gën a yéeme moom nee na bu ñu ñëwaa bu ñu ñëwaa ci sëñ bi di jaare bu ñu bëggee lekk dañuy dem ba ci ginnaaw gàdd gi ci àll bi tooyal ndox ci jànj bi rimb ko lekk ba seen biir fees ñu takkaat seen laxasaay ñun nag ay soos ak lu ne la ñuy xéewloo kon sant daal la war a def. ku teg sa tànk rek ci loo yëg keroog ba sëñ Tuubaa demee Gabon ba mu tegee tànkam ca ca ba gaal ga mun tey suñu borom xamal na ne maay liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa ñun nag ñu jóg jaar ca tànk yoon di barkeelu fi mu jaaroon kon ñun ñu ñoo war a sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin ba ñu yàlla baaxee suturaal ne bañ toppaat ay tànkam di jaar fi mu jaaroon te yaakaar naa yëg-yëg bi ma moom la ñëpp am ñi seetaan image yi sax yëg-yëg boobu lañ am waa loolu nag liggéey Sëñ Tuubaa rek moo ko man ndax liggéey Sëñ Tuubaa dalay raxas ba nga set mu yëgal la ba ca kaw te sa xol tamit da ci dindi lépp luy keñaan lépp luy ab bon bon da ko ci nete moo tax boo ko liggéey sëñ Tuubaa daal moom rek moo fi nekk ci luñ mën a teg loxo kon ñu ñëpp ñu ngi ndax bi nu ñëwee fii ci Rosso Mauritanie wax dëgg yàlla fekk nañ fi eh, ñi nga xam ne ñooy fédération Seexul Xadim bi bàyyi ko Nouakchott eh, sëñ Abdou Assis Diop mooy yor relation extérieure ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam dañoo yor ay bànqaas waaye itam ñi ñu fi fekk muy police muy gendarmerie muy duwaan ñoom ñëpp yombal nañ liggéey bi daanaka foofu dem rek dañuy kase li nga xamante ni bii mooy euh, mooy liste bi ndax ginnaaw bu ñu amee recommandation bu ambassade bu Mauritanie am recommandation ambassade Sénégal ca Mauritanie am tam euh, maanaam facilité bu ministre de l'intérieur loolu yombal na lépp ba nga xamante ni bii daanaka yi mun da ñàkk rek muy formalité yi fay bac euh, dagg assurance loolu rek lañ def yi ci des yëpp moom. Euh, gratuite lañ ñu ko defal wax dëgg yàlla ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax amul benn jafe-jafe ba fii mu nekk nii am nañ digalu yéeg ci oto yi ngir mën a traversé jàll incha allahu taala amul benn problème fii ci Rosso Mauritanie di diggu dox diggante réewum Sénégal ak Mauritanie niñ koy defee at mu jot jàng nañ fa limub alxuraan bu am solo ci ay kaamil yëkkati fi ay xasida ak ay bernde gannaaw loolu nag ci la convoi bi daal di deqee dugg ci réewum Mauritanie yoon wi nag def nañ ci ay waxtu yu bëri. ñaar fukki waxtu ak ñett ci guddi gi ci la délégation bi agsee ci Nouakchott di capitalu Mauritanie. bin agsee Serigne Sidi Mbacke ke di kilifa gi nga xam ne nii moo jiite lépp lu jëm ci ziarab Sarsara dalal na délégation bi ci njiitu soxna mam Issa Mbacke gannaaw loolu yëkkati na ay kàddu yu am solo wane mbégteem ci. tukkeem nemmeeku bu am solo bi nga xam ne nii soxna si def na ko ànd ko ak mbooleem délégation yi rawatina Euhlou kafe fii ci réew mi ak bitim réew. Sëñ Tuubaa rek lañuy lañuy bàyyil Sëñ Tuubaa rek it lañ koy seetal sant bu baax na ngeen ci fas xam naa ni lañ jot a def foofa donte weesu na lool la ma doon sàkku fii ndax danga maa soññu ndax man juróom-benn fukk ak juróom-benn barki démb bi ñu génnee koor gi loolu laa doon sàkku ci sama gaañu fii. 66. tey la ma am ku may junj naan loolu kat señ bi daa mel na dana xaw eh, daanaka ni ko gisee daal dana jafe ma ne ko nag du jafe fekk boobu gis nga ñuy wax ma li rëy na rëy boo xam ne waaye nag kon nu mottali juróom-benn fukk ak yi fii rek bu defee eh, barab ba nga xam ne mooy barabu Sarsara ñu mm. fas yéene buñ fa demee. jàng fa jàng lim ba luñ ndax lu doy ah, lim yi sax des koy man ay sas la rek dañuy tobbi sas rek ngir nu bañ a sàggan waaye lu ci waay jàng du doy wahab allahu tabaraka wa taala di kaatibi hadi alxuruf alqurana wa lisaanan arab wa wahab lahu fi ma ma lam yakun li xayrihi qat wala yakun li xayrihi awdu may na ko ci alxuraan ak arab loo xam ne mayu ko may na ko ko loo euh, euh, xam fàttali Sarsara di bërëb bi nga xam ne nii mu ngi nekk fii ci Mauritanie Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul def fi ab diir bu am solo liggéeyal fi boromam wétali ko fi yonent bi ba am fi ay màqaama yu benn góor yàlla musta am loolu tax na nag